kii gannaaw bu nu sante sunu boroom julli ci yonentam ba seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam noo ngi baal xaq ñépp tey balu xaq ñépp di baal xaq ñépp tey balu xaq ñépp yàlla nanu yàlla boole jéggal tomb bi ñuy fàttalante dañu koy tënk ci benn ci ponk yu mag yi nga xam ne ñooy ànd tudd lislaam loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ne lislaam su doon am mbaar ñu ne juróomi jën ñoo ko téye bu dee ab tabax juróomi poto ba ca jëkk ginnaaw bu nit amee pas-pas fas li mu war a fas mu tudd ci làmmiñam mu gunge pas-pas ba ne yàlla kenn rekk la mooy ki nga xam ne ku ko jaamu mu amal ko njariñ ku ko jaamu wut musiba dal ko ne muhammad miitam sallallahu alayhi wa sallam ndawama ak ña ko jiitu woon ñëpp tey wax li mu doon wax su noppee nag mu soog a jëm ci jëf pas-pas ak wax yi muy jëf nag mooy saxal julli yi juróom li feek mi ngi dund te di ko man bokk yi nag julli juróom fa ko nit di tëlee kam yi dal ay bokkam amantuñ ci moom yaakaar ndax day dem ba àgg ci su munta taxaw temm ak i tànkam bañ a wéeru fenn mu def ko su ko mënut mu wéeru fenn su ko mënut gàpparu su ko mënut mu gàpparu te wéeru su ko mënut mu tëdd wet ba ba muy jaaxaan kon bokk fa muy wàcce nit daanaka ay bokkam amatuñ ci kooko yaakaar mu saxal julli googu mu gunge pas-pasam ba ak waxam ja waaye bu liggéeyee ba war a am am lu mat nisaabit mu génn ca asaka bu weeru koor aj màkk ñëwee mu man ko mu aji màkk bu wooru weeru koor ñëwee mu woor ko bu mënee aji aji asaka moomu nag yàlla mi nga xam ne moo nu ko laaj ren jii bokk na ci at yi nga xam ne yàlla nañ ko muurloo waaye ràññiku na lool ci ne nawet moom nawetu yàlla lay doon rek mel nañ bëgg nawet nawetu yàlla doon rek lay doon mel na nañ bëgg nun ren nag mel na ni nawet bi ñëpp dañ koo bàyyee ak yàlla ndax am na lu fi dox loo xam ne taxoon ne kenn talut nawet bi waaye gis nañ ko mooy la mu waxoon ni ku ko bàyyeeg sa bopp mu teg la ci yoon woo xam ne rëccu du ca am ndax lépp fàggu na ko ni ko sëriñ bi waxee naan sëriñ bi fàggu na lépp yàlla noppi na ci lépp wa man yatawakkal ala allahi fa huwa xasbo inna allaha baaligu amrihi qad jaala allahu li kulli shay'in qadra bokk yeneen dégg nañ ci ay dëkk ñu ne su xiinee rek ñuy ñaan safaanu taw ndax na leen ndox ma def kuñ koy ñaan yàlla kon yàlla moo wàcca taw ba moo fa wàcc ndox ma yàlla moo ñoral kon nawetu ren bi nawet yëpp nawet yàlla waaye ren a ci raw yàlla moom mu ñu ko yónnee nag moo ñu laaj tuuti jox la lu bari laaj la tuuti mu tudd azaka azaka nag ginnaaw daa jëme daa jëm ci joxe am na ñoo xam ne boo leen ko waxee ñu fatt seeni nopp ndax liñ bëgg ku leen koy wax moo téye sa alal ji rek yàlla na yàlla musal ci loolu dara jaam nag mooy ñetteelu ponk ci lislaam bu nit ki fasee wax ko ci làmmiñam muy benn ñaareel ba mu fas yéene saxal ak julli julli yi juróom fekk mi ngi dund azaka moo ca topp ba muy sog a ñëw nag dañ daan seet nu ko nit mën a rek mu defe ko na ba nit ñi tàmm joxe tàmm ko ba tàmm ko ba tàmm ko ñu ne leen nag ku am nangam na ca génn nangam tegal ko fa àqi suñu borom ji ci sa alal bu dee ci mbay mi ma jëkk a tudd léegi moo wax ci alquran ne wa aatu xaqahu yawma xasaadihi ku ñoral rek na ko daal di génnee waaye ku dem ci borom yi xam-xamit yam dëkkal ca la muy liggéeyee mën na leen a laaj ba xam lii muy liggéeyee ana kañ la ci asaka di war ak nu mu ko ciy génnee kon ponk bu am solo la boo xam ne ku ko bëgg a dindi ci diine ji dañ koy jàppee ku génn ci diine niñ koy àttee ku génn ci diine bàyyi julli ku bañ na di ko joxe it dañ koy daan jël ko ci alalam waaye duñ ko ca neexal foofu la toll foofu la aska toll ci ci ci ak màggaay seydna abu bakrin siddiq radiallahu anhu nee na at moom doonee ab xalifa ca fan yooya rek daa woote ne asaka yi jot na nit ñi tàmbalee niig niigal mu ne leen lu yonent lu ñu daan nangul yonent bi du du ma nangu ku koy bañ tàmbalee ko ci man ku nanguwut jox asaka naa dal ci kawam takk na ab xare ngir jëlee asaka ci aw nit foofu la asaka toll yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fii di wax suñu boroom ji mu wax ne ku ngeen gis muy wax laa ilaha illallah muhammadun rasulullah di julli di génn asaka seen mbokka na ngeen ñoŋal deretam ak alalam nii ngeen ñoŋale seen deret ak seeni alal ndax seen mbokk seen benn ngeen yéen ak moom xanaa boog lu lislaam ñëw ne nañ ko def ci moom mooy fi mu wax ne fa in taabu wa aqamu salata wa atu zakata fa ixwanakum fi din alquran la waaye moom moo ne umirtu an uqatila annaasa xata yashhadu an laa ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah wa yuqimu salata wa yutu zakata fa ida faalu dalika asamu minni dimaahum wa amwalahum illa bi xaqi lislam xanaa lislaam ne kii def na nangam nañ dal ci kawam waaye kenn sañ def dal ci kawam su fekkee mi ngi joxe asaka di julli waxtu yu juróom asaka nag li tax suñu borom wàcce ko am na lu ñu si jot a junj loo xam ne ku ko def da nga gis njariñ la waaye ku ko defutit ak payam a nga tax teg ne ndax yàlla bu diglee day teg pay ca pegg ba waaye day teg ab yar ca pegg ba ku def jël pay ga bàyyi fa yar ba waaye ku bàyyi yar ba dal ko yàlla ci yàlla musal te moom ab yaram day dal bokk yi am na jàngalekat yoo xam ne bu njëkk bu ñuy wantal gone di teg ci moom ay bant gone gi du xalaat bant yi koy dal nii rek want yi waaye yar bu mujj ba lay xalaat ndax léeg-léeg mu tàllal ko ko dana xalangu lu yàgg-yàgg te du tax mu sedd yar boobee nag yarab suñu borom moo ko gën a metti fuuf moo ko gën a tax yàlla nu ci yàlla musal nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam del jël ci alali jullit yi asaka ndax dana am lu mu dox seen digganteeg loola bu leen tàggaleeglee dana leen defar kon xud min amwalihim sadaqatan tutahiruhum wa tuzakkihim biha asaka nag kon buñ ko jàngatee day setal nit ki tàggale ko ak bëgge ak nay waaye dana ko dana def ci jëmmam ja tàmm joxe ba ba muy doon ab tab dana xamit teraanga teraanga jóge ci moom war a dem ci ñeneen dana xamit amal ñeneen njariñ dana ko jàng ci asaka aw yoon wu gaaw la ci yokk alal maanaam yokk ko mooy barkeel ko dolli ko barkeel ko barke mooy loo xam ne niwut na gàññi waaye waajaan kay tedd ba muy faaru ñeneen di ca tedd bukkut ak lu bari quantité ak qualité du benn alal asaka day def ci alal qualité qualité alal lay génne waaye dana taxit ña ngi koy jox ñu la xam ak ñu la xamul ñëpp ku dem ba xam la yàq koy jox dana la ëmbalug cofeet te dana bokk ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ne nit ki bu faatoo léppam day dagg ba mu des yat lim na koo amaloon njariñ rek mu ñaanal la ñaanam googee li fekk mi ngi dund dala ko ñaanal saa bu ñu la tuddee xelam dem ci yow mu ñaanal waaye it day dindi ay gàkk-gàkk saa bu nit ki joxe asaka ren asaka joojee mu joxe te yàlla rek tax mën naa am yu mu defoon ci alal ji te yëgu ko te bëggu ko woon asaka mën na ko seet ca loolu ndax tutahiruhum wa tuzakki Seydina Abu Bakrin Siddiq wax naa ko léegi bi mu doonee xalifatu rasul xalifatu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam dane luñ daan nangu ci jamono yonent bi du nangu mukk ku koy bañ tàmbalee ko ci moom nanguwut kuy naan damay julli ba noppi du ma joxe asaka loolu du ko dégg ci nopp ba di ko nangu ci xel Abdullah ibn Abbas nee na ñetti aayaa ngi nii yoo xam ne dafa lëkkale julli ak joxe asaka dafa dafa lëkkale dafa lëkkaloo waaye tudd na ca aqimu salaata wa atu zakata ëpp na aw yoon ci alquran moom kuy julli na joxe asaka moom sax dafa àtte ne kuy julli te du kuy julli te du joxe asaka julli ga yàlla du ko nangu joxe asaka bokkul ci sarti julli wala yi koy yàq waaye day def ci jaamu yàlla ak nit ki aw jaal ci gémmiñ aw jaal mooy bu fekkee ci kaw la nekk bëñ yëm tollool ci suuf dañuy sàqame te duñ daj dara ndax moo ñoom ñoom ñoo ko war a seq di sàqame muy mokk aw jaal lay def ci sunu jaamu yàlla yal nañu ci yàlla musal nag ko joxe kon ginnaaw day dindi ci nit nay ak bëgge day def ci alal barke di ko dolli di def ci suñu diggante ak bëggante ak yool buy dax sax ba faw ndax saa bu ñu tuddee xel dem ci yow ñu ñaanal la te nit dana toll foo xam ne ñaan dong lañ ko mën a am kon ala asaka lu am njariñ la gannaaw bu mu doonee ndigalu suñu borom ba àggal te amul leen ndigal suñu borom loo xam ne du njariñul kese ci jàmm bi asaka nag bokk yi buñ ko jaawale ak taxi taxi waan yi ñuy fay ci kaw suuf si xaaj ñoo bokk asaka moom xam nañ fa muy dem ndax yàlla mi ko génne lu mën a joxal leen ma ko diw ak diw ak diw ak diw innama sadaqaatu lil fuqaraa wal masaakiini ba aaya ba àgg mat nañ juróom-ñett ñii ne juróom-ñaar waaye lu ci mën a lu ci mën a am daal yàlla moo ne jox leen ko ñële waaye tëkku na lool ku doy dal asaka ci alalam am na fi muy wax ci alquran ne wa waylun lil mushrikiin jublu jullit yi de allazina laa yu'tuuna zakaata mooy koo xam ne yàlla dafa rëdd mu fa mu bëgg a far yàlla dafa rëdd mu bëgg a far di di leen teg suñu borom mbagg nee na waydun lahum nee na it ñi nga xam ne dañuy dajale rek bu ne asaka ñu naxasaayal wala ñu jëlale ba mu jàll nañ xam ne am na lu leen di xaar walladina yaknizuuna aldahaba walfiddata wala yunfiquunaha fi sabilillahi fa bashirhum bi adabin alim ñi nga xam ne lu ñu am denc rek saa bu ñëwee xool ko raay ko ubaat dellu boo nee asaka ñu xool la ca war a génn ci asaka ñoo day jeex bay nee na bàyyi leen bàyyi leen leen ñu denc yawma yuxma alayha fi naari jahannama fa tukwa biha jibaahuhum wa junubuhum wa duhuruhum hada ma kanastum li anfusikum fa duqu ma kuntum taknizuun nee na ëllëg dañuy jël alal gi def ko aw feer feer yi ñuy paase feer yi ñuy paase cosaanam du feer wu ñuy paase weñ la woon gu ne ci suuf nit jël ko togg ko sotti ko mu doon aw feer yàlla leen ko dàq def ko fer wu tàng jër di ko ko di ko ko daas daaf ci jëbi ak leex yi ak wet yi ak di gannaaw gi fépp foo xam ne daa gën a nooy ci yaram wi rek foofee lañ koy daaf ba marqué fa mu ne yàlla yàlla lu mu def lu jar lii mu ne ko lii mooy sa alal jooja yaa ko moom de fa duuqu ma kuntum takrisun dellu ca tag ne ñi nayaa nayaa naay bëggee bëgg ba mel ni xurdunk xurdunk nee nañ fu mu jëm day yóbbaale bagaasam yépp wóolu ko bàyyi fenn am wal di fa ñëw wala lakk di ko fa fekk fu mu jëm mi ngeeg bagaasam nee na bu dee nit nag bu mu jàpp ne lim denc mu bari lool asaka ñëw mu kanaayaale génn ca bu mu defee ne daa gën a daa gën a muus mën na gën a muus waaye gënta yeewu nag nit ñi ndax loolee bu ëllëgee dañ ko koy takkal ab caq caq ba doon caq yi ñu xam waaye jaan jum ragal lay doon ci pettaaw wala yaxsabanna allaha wala yaxsabanna alladina yabxaluuna yabxaluuna bima aataahum allahu min fadlihi huwa xayran lahum bal huwa charrun lahum sa yutawaquuna ma baxilu bihi yowma alqiyaama kon boobu jamonoom jot na ci mbay mi ndax bari nañu santaane am ngóob ak déqi bokk yi alal asaka xamut ko moom alal ji xamut toolub gaaw wala xamut toolub dibéer la saa bu ñoree ñoree ci ndoxum suñu borom mi wàcc si kaw asamaan si day taxaw ne la sama wàll nga jox ko ko mu jox ko ne ma ko war a jox jotale ko xamut ku moom tool bi ñu bàyyi xel ne nag asaka yi du ku la neex jox ko ko am nañu koy jox ña ko doon liggéey ca daara ja man si na ko tudd waaye bokk yi kuy liggéey ca daara ji kenn waru ko jox asaka joojee mu doon liggéey ndax yaa ko doon dundal képp koo xam ne su wéri de yow la ñuy woo waroo ko jox asaka ndax ci sa njaboot la bokk koo xam ne it yitte ju sew ji mu doon am ci biir nawet bi yow la ko doon wax it rikk bul taafantaloo asaka jox ko ko ndax diggante boobu soxla ya wàcc la ca moom waaye nañ ko fa ne teg ñiy dem liggéey yu mag yi bu dee liggéey yu ndaw yi nga xam ne seen borom seen bopp la ñuy liggéeyal moom ñu bëree bëri tàmm nañ ko ba seen jaag ba bu ñu wàññee juróom-ñeenti tànk benn ba ñu def ko asaka ber ko ne am na suñu mbokk séeréer yoo xam ne nag dañ naan asaka moom deesu ko lekk deesu ko naan ëpp naa def day yàq xanaa rënd la man li ànd ak cere ñu ko li ànd ak ñeex mi daal la mën a jënd waaye mënut leneen loolu tam jumte la kon boog li tax maan sama mbokk séeréer yi man alpulaar la waaye nag ñi nga xam ne dañ koy liggéeyaloo seen seenu njaboot waññi ko jox leen ko mu teggil leen ab diggante boo xam ne duñ leen ko la duñ leen laaj jenn yitte it ëpp naa def waaye ëpp na fa bàyyi di ko jënde gasoil bi nga xam ne moom la ñuy bàyyee léegi ci machine yi xew léegi tam kon ak suñu borom la joo xam ne moo joxe nit ki moo ko jox li mu koy jox ne ko fell ca tuuti junj naa léegi ab jàg nga jéggi juróom-ñeenti mètre xanaa juróom-ñeenti mètre mu ëpp benn mètre waaye bu dee mbay mi nga xam ne nit kee fexe ba amum ndox ndox mi ndoxam suñu borom suuf si suufa ma jiw wi aw jiwoo ma nooy yi ay nooyee ma dala ko abal rek moom itam lam la ciy laaj asaka lu néew lay doon du ko yàq du la yàqal lañ ca mën a amee kon boog waxtoom jot na sant yàlla nag niñ koy defee du am nañ ren lu ñu amutoon daaw rek waaye la say jiitu day doon ay jëf muy génn ak suñu borom jim ci génneelu te boo noppee nga jox ko ne dañ ko war a joxe yàlla noonu yàlla dafa dégg ak topp te musul seytaane ki pakkam yaxfirullahu lana wa lakum wa lisaa'iril muslimina amin